bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu leen di nuyu di leen ziyaar di leen bal xaq di leen baal di ñaanal Cheikh Seyd al di ziar ak a ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifatu maam Cheikh Ibrahim sunu borom yàggal ko fi te wéral ko di ziare kilifa gu mag gi di Cheikh Mamadul Bachir Fall al Quran di ko ñaanal yàlla suñ borom yàggal ko te wéral ko ba mu yàgg woote bis bii te ànd ko ak njaboot gi yépp di nuyu njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi nekk ci jataay bi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare bu baax di sant yàlla it bi mu nu defalee tawféex ak ndimbal ba ñu dellusiwaat ci bis bu mag bii nga xam ne at mu jot njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi di ko taxawe di sant yàlla ci tàbb gi ñu tàbbi ci jataay bi jataay bu am solo jataay bu bu tedd jataay bu mag jataay boo xam ne lañu fay jàngale lépp di ko fa waxtaane mooy yoonu texe mooy yoonu mucc di yoonu ngërëmul yàlla ndax ki ñu fi fàttaliku bis bi ñu koy fàttaliku mooy bisum ngërëm te ngërëmul yàlla mooy ngërëmul Sëriñ Tuubaa kon noo ngi nuyu sëriñ Mbakke di nuyu it sunu xaritu bopp bi ñu fekk léegi muy wax muy Cheikh Ibrahima Fall moom Serigne Cheikh Fall ak Serigne Talla mi yoroon kaddu gi léegi ni mu ko waxee léegi it Cheikh Ibrahima Fall ku ko waxtaanee yaa ngi waxtaanee jëfi Serigne Touba. waaye it yaa ngi waxtaane ni sëriñ Touba bëgg ku ni mel muy ko yomba waxtaane nag waaye di ko jafee waxtaane ndax ñu baree bari sama classe yi duñ ca xóotal seenu gëstu waaye boo ca janalee sa gëstu dëgg ba gis ñi bind ci moom ci ngay xam dëgg-dëgg dimension Cheikh Ibrahima Fall ndax ñenn ñi ci keppaaru Serigne Touba lañ bokkoon nekk ak moom di boroomi xam-xam yoo xam ne kenn na seen seen xam-xam waaye kenn na tabliwut it seen ragal yàlla kenn na tabliwut it seen sàmm te ñoom dañoo nanguloon mbirum Cheikh Ibrahima Fall. di bind di jëme ci moom waaye di wax it wax yu yéeme di ko jëme ci moom koo ci gën a naw ci mag ñi rek ak loo jàpp ne doon na ko dund charia ak lum nuru nuru ku taral wetu Cheikh Ibrahima Fall ma mosu ca bokk mosu ca mukk ndax xam nañ ne cër boo mën a am te nunguloo Cheikh Ibrahima Fall sa cër du dëgër loolu moo taxoon mag ñi fonkoon ko daan jël seeni bayit di ko jëme ci moom ak di jataayook moom mu nekk koo xam ne it jamono moo laaj waxtaane ko ndax Baay Faal laa moom day day lu bari léegi waaye léegi-léegi damay wax ne dana am tur yoo xam ne tafaulan lay doon mooy gàtt nga nangam rek waaye dëgg-dëgg ku jaxasoog Baay Faal yi xam leen ci ñoom gis seeni jëf léegi-léegi boo génnee boo déggee ku ne Baay Faal la yow doo mën a nangu loola ndax ña nga xam ñu di Baay Faal duñ mel noona Cheikh Ibrahima Fall nag dafay bokk ci borom bi subhanahu wa taala dafa wax nit ñi ci alquran kattanam faalun lima yurid yafalu ma yasha inna allah ala kulli shay'in qadir ginnaaw lu ko soob def lu muy def du ca tàggoo ak kenn ba noppi nag man lépp kon sun boroom ay sañ-sañam kenn xamul nu mu toll te sàkk na lu ne ci gaa yu baax yi may na ca ku ne it ab cëram te Sëriñ Tuubaa mépp mbir moom saxal mooy lu yàlla saxal mooy lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxal ndax moom moo wax ne neex naa ku neex yàlla te lu ma neex neex na yàlla te ku ne xam na ne sëñ Tuubaa neex na Cheikh Ibrahima Fall te moom moo waxal boppam ne chitu lladi shaa al ilahu wal ilah yashaau ma chitu bila durrin wala kon sëñ Tuubaa lépp lu ko neex bam ne lii neex na ma rek loola neex na yàlla waaye lépp lu neex yàlla it neex na sëñ bi nii Sëriñ Tuubaa mel ci jamono ba buñ nee xaadimu rasuul xel yépp daw jëm ci moom loolu daa wax ne moom du lu nit di jëf waaye coobare yàlla la ci ngëneelam la koy defe kaw ni abdullahi wa xaadimal kitaab fadlun min al wahaabi min iktisaab nii ma mel ràññikoo ko ci liggéeyal yàlla ci alquran mel ko ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam fadlun min al wahaab la maanaam ngëneel la yu bàyyi ko ci yàlla waaye nekkul loo xam ne ak fagguteef la gu nit di faggu ba mën a am loola loola moo taxit Cheikh Ibrahima Fall sëñ Touba dafa jublu ci moom wane yoon wu nuy jaar ngir jariñu ci na mu binde lu yem ñépp def ci jëmmam lu yem ñépp noona it la faggoo ñoo xam ne yem na ñépp ndax wax dëgg yàlla bu ñu xoolee yéen tudde ne mooy ponki diine nga xam ne dañuy wax ne mooy julli woor natt asaka aj makka ginnaaw ñaari baati seere waaye bu ñu xamoon ne sunu borom bi mu ko waxee ba nopp bu ci nekk dafa am ay condition bu la waxee ne jullil daf laa wax ne day tee def lu ñaaw bu fekkee ne kon yaa ngay def ab safaan ne yaa ngay julli kon day mel ni na suñ borom bëgg ku jullee yow jullee woo waaye sëñ Tuubaa nag dafa li alxuraan ne bi fi Cheikh Ibrahima Fall bàyyi ko sëriñ bu Bousso sëñ muulaay dafa def marsiya boo xam ne daf ñu ca portaleel kan mooy maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne bu jëkk sax bayit yo yenn ci bayit yi daanaa dégg ñu ne ab shérif ma ko wax waaye ginnaaw bi ma gisee ci majmuwa boobu ñu dajale ci diwaanu sëñ muulaay buso bi laa ko fekk mooy lu bari nga xam ne ñaar lañ ci di lu cëpp ñaar lañ ci daan jël wala ñett waaye daanaka ak xasida la sëñ muulaay buso ba muy bi Cheikh mu fal faddoo te fekk na jëkk mu fi bàyyi ko sëñ Mbakke Bousso mas na koo yónni ci Cheikh mu fal moom sëñ mbakk moom sëñ Moulay loolu sëñ Sadeex doomam moo ma ko nett yàlla na ko yàlla doon leer nee na bi Cheikh Ibrahima ñëwee boobu fekk na mi ngi mi ngi doon mag tànk yi sax mi ngi metti waaye ba mu ko dalalee néeg bi mu ko dalal ak ab lala ngi fi ak a ngi fi waaye bi sëñ Mbàkke bu sa ñëwee dafa toog ci bi sëñ Muulaay bu ñëwee dafa toog ci basang gi ki mu àndal toog ci suuf bi Cheikh Ibrahima ñëwee dafa jàpp ci buntu néeg bi ci balgand bi daal na Mbàkke bu soo boo mën a yar Mbàkke bu soo moo mën a yar daal na fii Muulaay bu sa toog tey démb nit yendu na fi te ci kaw lal bii la toog waaye gis nga sëñ mulaay bi mu ñëwee moom toogul ci lalu Cheikh Ibrahima Fall bi waaye ci basan gi la toog taalibe bi toog ci suuf mu ne nag sëñ Moulay mu ne sëñ Mbàkke moo mën a yàlla ba mu fàddoo dane walal kiraamu wa walal xusnu ya asfa ala samiyi xalimillahi man sharafa akrim bihi min muridin xaaza martabatal ashyaaxi barran saduuxan bil huda kalufa dana tedd nga ci boppam moo dem ak baax ak ngëneel lu ko wuutu mooy njàqare ak tiitaange ca kañ tuddee xalilullaahi muy Cheikh Ibrahima Fall mu ne teralal akrim bihi min muridin xaaza martabatal ashyaaq nee na Cheikh Ibrahima dafa làmboo mbooleem nee na du mel ne martaba waaye martabatal ashyaq sëriñ su baax si yépp seen maqaama yi seen martaba ya nee na Cheikh Ibrahima Fall moo ko moo ko lamboo mu ne moom na xadd bàyyi a cheikh qidaman xaadiman fatina yabghi ridaahu wa anhu ne ba muy jaayanteeg sëñ Touba bu yàgg la kon jaayante nag sëriñ bu yàgg moom Cheikh Ibrahima Fall waaye ba mu jaayanteeg moom it mu nekk nag di ko liggéeyal di xaadima fatinaa nag nekk ko xellu kon dangay ngay dégg ne Cheikh Ibrahima Fall ci ñi gënoon a ñaw te xam nga bokk na ci tedd ngay jikko am xel bu ñuy wax makaarimul axlaaq am xel ci la bokk mu ne Cheikh Ibrahima fal ci ñi gënoon a am xel la dokkoon foo ko ma sa fekk nag ngërëmul sëñ Tuubaa rek lay sàkku waaye lépp lu ko war nag ak lu mu diis diis loola da koy gàtt mu ne mooy koo xam ne it fi llaahi jahada yaxfu ithra qaaidihi ila alhuda wa an ilminhaaji man xarafa nee na day jihaat ci yoonu yàlla waaye day roy sëriñ tubaa lu muy royee sëriñ tubaa mooy ni sëriñ tubaa def ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jeex ci takk ba wax ne bihi aruumu jamil xayri min maliki fa huwa alwasilatu fi sirrin wa fi alami sëriñ tubaa nee na lépp lu may fàggu ci yàlla ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam laa koy jaare Cheikh Ibrahima Fall roy sëñ Touba ci lépp lu mu bëgg ci yàlla ci sëñ Touba la koy jaare mu ne waaye lii la ko sëñ Touba defal nag raqaahu min ba'di ma rabbaahu mut'ifuhu bima bihi min miyaahil ghaybi qad gharafa sëñ ko yéege kon tarqiya sëñ Touba ko tarqiya sëñ Touba ko tarbiya mandal ko nag ci mboolem maa ul ghaybu nga xam ne moo faddu mu sol ko ca ba mu fees dell moo tax bi mu fi jógee mu ne man li tariqati yasju nahwaha nafara wa man yuniiru quluban xafala xafalan xalafa ana kan ginnaaw Cheikh Ibrahima Fall mooy dajaleeti nit ñi ana kan ginnaaw Cheikh Ibrahima Fall mooy fekk xol boo xam ne dafa lëndëm borom ne ci sàggan mu raxas ko ba xol ba set wicc mooy mën mooy mënati loolu mu ne waman li xidmati janbi cheikh muhtasiba yaxtaaduha waladal aqrani ma daxufa ana kan mooy nekkati ci wetu sëriñ Tuubaa di ko liggéeyal ku daan taxaweeti ci wetu sëriñ bi mu ne man lil ayaali boo xay del xil man di dawil xaajaati man lil yataama baadu wa duafa bi Cheikh Ibrahima Fall demee sëñ Moulay Bousso dane ana kan mooy taxawati njaboot gi xam ngeen lépp lu mas a am joxe na ko ci yoon yàlla ba bi sëñ bii dem ci géej gi lépp lu mas a bay liggéey ko wala lépp lu mas a am joxe na ko ci njabootu sëriñ Tuubaa gi fi nekkoon boole ko féetale gi ko sëriñ Tuubaa féetale woon ak Maam Mor Jaara borom Cham bi muy dem ci géej gi na ko das ay gor as gor suy jaamu yàlla tey dundew ñaqam nga xam ne da daan wut ab dund di ko yónnee ci borom Cham mu nekkoon kon ana ñan ñooy taxawati njaboot gi ginnaaw Cheikh Ibrahima Fall kan mooy amati yitte mu faju ndax Cheikh Ibrahima Fall nekkutu fi man lil yatama jirim yi nag ana seen baay ana ku ni wéerooti fu ñu jëmati baax du wa du'afa ñi néew doole te amuñu kàttan ku leen di taxawati sëñ Moulay bu seenee ne kon ana koy taxawooti ñooñu mu ne kon Cheikh Ibrahima Fall ba mu demee mu daal di ñaan wax ni fa jaziya rabbi ibrahima ahsana ma jazayta abdan wa barik fi lladi xalufa na ko yàlla fay fay gu muy fay jaam ba mu gën a gërëm te barkeel mbooleem lu wutu ci ginnaaw moom Cheikh Ibrahima Fall daal di ñuy indil ba indi sax date bi at mi fi bàyyi ko lépp sëñ Moulay daf ñu ko leeral waaye ca jeexintal bi nag dafa wax ne wa fi fasixi final firdawsi askanahu bil xadri min sundusil bawaahi muktanifa nee na ci digg digg ëtti firdawsiya la yàlla dëkkal Cheikh Ibrahima Fall nee na boole ko gason yu naat yu ko wër lépp di naataange fa yàlla dëkkal Cheikh Ibrahima Fall ginnaaw bi mu fi bàyyi ko ku ne dégg na ku ñuy wax sëñ Modou Diaw Paxa bi mu ñëwagul ci sëñ Touba Maliku Noxaat la tuddoon mooy ñi dégg grand-mère ñëpp may seen buur bi ñëwee ci sëñ Touba darajaam yàgg na ci sultaanul aarifiina wa maxrafatul xaarifiin sëñ Modou Diaw Paxa bokk na ci cëram ak rëyu maqaamaam sëñ tubaa won na ko mulkook malakoot ci gànnaar ci genn guddi te awliyaullah yëpp mulku la ñuy yem moom egg na mulkook malakoot sëñ tubaa wax na ko it yaay sama jaww maay sa asamaan ba tax mu wax ne ahmadu jaw jawwun wa sayquhu sama wal ardu taxtal jawwi la taxta sama kon ku rëy daraja la sëñ Cerno Buso mii di xalifaam moo ma nettali ne ku ñuy wax sëriñ Balla Buso sëñ Balla Buso moo ñëw ci sëñ Modou Diop Paxa ca Gosaas fekk ko fa ne ko tey jii de danga may neexal ma wax la li ma gént li ma yëg daan ko biig dama dégg kaddu gu naan kaddu gu bu du loon Ibra Fall di yow sëñ sëñ Modou Diop bu du loon Ibra Fall di yow mu ne ko sëñ Touba la ko wax de ndax sëñ Touba ma waxoon ne ma may naa la nga seen pëndu Ibra Fall bu àkkee nga ak si xoolal ki toon sultaanul aarifina te sëñ Thierno bi di xalifa moo ma ko nekk li sultaanul aarifina nga xam ne moom xama fi mu toll ci sëñ ci ci ci xam kenn du ko gam-gamle kenn du ko natt moom sëñ Modou Diop nga bi sëñ bi nekkee gànnaar mu nekk sugeer gii ci boor yi sagata ci la sëñ Tuba waxoon booba naar yi dañoo laaj sëñ Tuba laaj yu bari sëñ Tuba na ku may wool Ahmadou Diop Paxa nee na bi sëñ bi kàddu sëñ Tuba daanoo rek la dégg loola dem gànnaar fekk fa sëñ Tuba moo tontul naar yi Cheikh Ahmadou Bamba kon cër bu rëy noonu ko am ba noppi ñu may la nag maqaamam bu si Ibra Fall agsee nga mën a agsi sëñ Ahmadou Diop moom moo wax ne al Paxawi ilayka salaamun yuallimu naas annakum tafuuxu bila inkaani dawil xali jiirika nee na ko maa ngi lay nuyu di la xamal ne nag ci lu amul benn sikk sàkka sa kem yépp yaa leen féete kaw yow Cheikh Ibrahima Fall maanaam say kem yaa leen féete kaw maanaam say maas sag maas yaa leen féete kaw salaamun yuriduna annakum du taqaddumi ala julli hadha al jili taxlu qabilika nuyoo boo xam ne nag dañuy xamal ne yow yaa jiitu yow Cheikh Ibrahima Fall ci mbooleem giir yépp mbooleem say kem yaa ca jiitu tey nag saw xeet sa giir gi nga bokk dana kawe dana yëkkatiku dal di wax ne la in rumta baaban gayra dal baabi yaa axi fa waahat ma satxan andaxat kafa sabilika nee na bu fekkee ne danga bëgg egg ci yàlla bëgg a yegg ci sëñ Tuuba ne damay teggi buntu Cheikh Ibrahima Fall nee na jaar nga ca ñal wa doo yegg nee na doo yegg mukk ku bëgg a yegg ci sëñ Tuuba nee na faw nga jaar ci Cheikh Ibrahima Fall mu ne tabarrak bihi in kunta mimman taallaqu tanaalu na yumnan wa fawzan yali laka nee na barkeelul ci moom yow mi aju ci Cheikh Ibrahima Fall te xam ne faw faw danga am mucc danga nga amuk tuufu bu fekkee ni Cheikh Ibrahima Fall nga aju nee na faw payug yàlla ñëw ci yow mi aju ci Cheikh Ibrahima fal mu di koo xam ne kon la borom bay di si yooyu doon wax man raama mislaka ajas fala yaraw fi lmajas dalika waxdu qad najas charwaaka laysa fi lbashar loolu la muy tegtale rek kenn ku ci nekk mooy xam ne bu ne la woon boo jógoon di wër ñu ne looy wuti nga ne damay wuti ku mel ni Cheikh Ibrahima Fall mu ne la defal nag ku mel ni Cheikh Ibrahima Fall moom kenn mënu ko gis maanaam kenn moom Cheikh Ibrahima Fall amut ku mel ni Cheikh Ibrahima Fall amut mu ne tariquhu xayr turuq saadikuhu kafal xaraq gadan yakunu kal bara ànd isdihaami fil xashaw nee na yoonu Cheikh Ibrahima Fall mooy yoon wi gën ku ko sóobu ku yu ku sóobu yoonu Cheikh Ibrahima te jaar ca danga mucc ci lakk nee na bu ëllëgee ban jël siraat gàcc ko ci jahannama it ku aju ci Cheikh Ibrahima Fall te sóobu caw yoonam yaay gën a gaaw melax ci jéggi ci jamono ba jaam ñëpp dajee mu yomal xiyaamatul akbar kon loolu la muy tegtale mooy wane na ñoom ñooñu xam nañ lañuy wax ci seeni bind moo tax am ku ko wax ne acheikhu ibra jasakallah salihatan wala adaka min arrahmani insan anta alladi nilta inda cheikhi martabatan ma naalaha min jamii lxalq insaanu yow cheikh ibrahima fall yàlla na la yàlla fay daal na ko kenn du la jot fa yàlla am nga ci sëñ Tuubaa martaba moo xam ne ak daraja joo xam ne maanaa laha min jamihi l xalqi insaanu moo leen mbindee fi nit ku ko am amut maanaam nit ku am li nga am ci sëñ Touba amul yow Cheikh Ibrahima fal yow rek yaa ko ci am moo tax ku ñuy wax sëñ lamin gay Lamine Gueye Firdawsi sëñ Modou Lamine Gueye ku yéeme la woon daana wax ne bu sëñ Touba woote woon ak sabar ku demut dem sawara waaye xam naa ne man du ma wujji daana wax ne man bu sëñ Touba woote woon ak sabar du ma wujji ndax du ma def lu neexul yàlla waaye xam naa ne ku demut dem sawara xam naa ne ku wujjiwut dem sawara waaye xam naa ne du dem man moom daana wax ne sama kër sunna laa ko sancee ñage ko charia ku ko ñëggarti nag yaa boole Mouhamadou Lamine ci sa bopp waaye Mouhamadou Lamine boolewu la ci boppam moom moo waxoon ne daa ma sa toog ba yàgg mu ne Ibrahima Fall de kenn daa xamul fa ko Sëñ Tuubaa làq waaye niwut ci caaxaan mas naa wax loolu sëñ Lamine Gueye Ibrahima de kenn daa xamul fa Sëñ Tuubaa làq waaye niwut ci caaxaan kon ñoom xam nañ ne kenn jotiwul fa ko Sëñ Tuubaa làq Sëñ Tuubaa ni mu fonki diine ku mënta muñ nit ñëw na ci sëñ Tuubaa na ko bu yàlla wooyee yonent bi woy sëñ Tuubaa na ko ahmadu woy ku mënta muñ lii nu muy muñee ku dul julli du woor ku fekk ay nit sàkket ba noppi ñu nodd mu dajji lu sàkket ya ba noppi bàyyi kuy liggéey di ko jox te du julli du woor xanaa yàlla mayit ku ne la ko soob ak la ko neex xanaa kon sëñ Tuba amul ci nguurug yàlla lu ko neex def moo tax sëriñ Fadilu Mbàkke mii nga xam ne dafa xam sëriñ Fadilu bañ koy wax ci dëkk bi naan ko forot bi ci dëkk bi danga nga war a wax sëñ Fallu dane borom yoon wee jëkk a forot ki moom yoon wi ndax fekk ku du julli du wóor nga ne ko duut ci diine kenn mënu ci loo ci man bu nee tuubaa tey jii sooroon bii ñu tudde Cheikh Ibrahima Fall dafa am lu muy jàngale ki daq julli ba julli fi kenn julliwut fi mu tëdd sooroon ba fa sut ku julli du woor lañ ko tudd loolu nit ñi dañoo war di xalaat kon dañ ko waroon tudde ñi mën a julli wala ñiy naafila guddi wala ñiy woor waaye li mu si jàngale mooy li kii di mën a julli julli julli julli ku bëgg a jariñu ci moom nit ki deewut julli ngay def Cheikh Rafal mi man de seex bu ne dégg naa ko ba mu de seexub mën a jàng maanaam jàngale ko suñ tubaa seexal déggaguma ko de am yéen daje ngeen feek moom fenn sëñ jiw day julli ba sëñ bi seexal ko man de liggéey laa xam man liggéey ba sëñ bi seexal ko daal joxe addi ba sëñ bi seexal ko tërbiyew ba sëñ bi seexal ko loolu laa xam yeneen moom déggaguma ko moo tax ku bëgg a jariñu ci sëñ tubaa ni kooku ngay def mu ne ko laa yajoxul yow ma maa qadimta min sharafin illaa xasuudan xaw duubal xaw qawaan nee na ko li nga am yow Cheikh Ibrahima fal kenn du ko bañ ku kudul koo xam dafa iñaan te doon ab fenkat doon workat nee na waaju bon képp mooy dingat li nga am yow Cheikh kon foo dégg waaju naan Cheikh Ibrahima Fall teg ca baat yëgal na moom workat la ku soxor la fenkat la foofa nga koy classé te ñooñu kenn du leen considéré ci diine loolu it Cheikh Ibrahima Diop gis nga doxoon na ko Sëñ Tuubaa ci gaa ko jéem contre wax ko ne ko da rey na sabquka kullal alamina bilaa rey biñ si wa ahmaqin aw xaasidin aari ñooñu rek ñoo xamul sa diin waaye ñeneen ñi mu doon sëñ Touba am na ku daan ñëw ci moom gis nga Cheikh Ibrahima Fall ku ma ca def très attention la am na kooku sëñ bi da ko fonkoon saa yu saa ñëw di wax sëñ bi di ko tontu benn bis rek mu ne sëñ Ibrahima Fall da jaar naa fa këram nga waaye ñoom wóoruñu sëñ bi ci la noppee di waxateeg moom dara saa yu ñëwee danaan cel te ku sëñ bi ubbiloon ci boppam la waaye saa yu masaa ñëw danaan cel am na ci mag ñi ku mas a laaj sëñ Tuubaa ne ko dama lay laaj jàng alxuraan di ko xool ak bañ ko xool lu ci gën sëñ bi ne ko di ko xool mu ne ko waaw ni nga fonkee jaamu yàlla ak Ibra Faal mii nag mu ne ko baal jàmboor nga xam ne ba ba mu daataan yeggale rek sëñ bi dana ko bàyyil jàmboor Ibra Faal moom li ko dal ñàkk ko fonk diine dal tegu ko li ko dal ñàkk fonk diine tegu ko ko kon li dal Cheikh Rafal la kenn xamul lu kenn xamul la rek ku ko xamul lijjanti am ku ne ko man raama fii ka rida rahmani fahu bi laa raybin lahu min ilahin gayri muftaxir kuy sàkku ngërëmul yàlla jaare ko fi yow Cheikh Ibrahima Fall faw mu am ngërëmul yàlla ku bëgg ngërëmul yàlla jaar fi yow faw mu am ko ataaka mawlaaka ilman min ladun fama awsata man salaku bi darsi wa suwar ilmu la duni yë la xam-xam bopp kenn du ko jàng yàllaa la ko solal yow Cheikh Ibrahima Fall xam-xam la bopp nit di ko jàng ci téere ba xam ko ndax bokk yi xam-xam la boo xam ne bu ko kenn doon mën a jàng ba xam ko mooy di ko xam code bi sëñ Tuubaa di defaree nit code boobu ku ko xamoon defar sa waa kër nii gaa ñu sonn ci seen njàng mi te bëgg a seex dëkk bu ne nga jàng fa téere bu ne nga jàng ko metti ne nga metti ko dangal gu nga dangal dangal ko bëgg a dégg rek ñu ne xaalif toxaraf wuutee la gaa yi des na la xam bu ne gàmmu nga ne araam na fu ne nga sànni faw xeer ngir bëgg ku la xam képp ak bëgg a seex a ko waral sëñ Tuubaa na woon Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf jërëjëf ji di rogalaat lu sant Fall te Cheikh Rafal jur la baa mu jur koo mën a doon ba dinay tukki sa barke di sax te du jeex te du wàññi ko du amul relevé ku man loolu. lii di wax nag suñu kàddu suñ biir ko wax ndigal la ko daaw fekk wax kenn ko na xam ne addee Cheikh Ibra bu ñu xamee Cheikh Ibra bu ñu joxee kër Cheikh Ibra moom lu tegee kenn Cheikh Ibra nan adda nan laaj addee Cheikh Ibra bi jërëjëf kon suñ borom moo la defal xam-xamu la duniya daal na ko wa man an nahji yarqabu fi safahatihi fa huwa shaqi lada bi fahmi wal fiqar képp koo xam ne ak ndofam dafa tax mu won ginnaaw soow yoon yow Cheikh Ibrahima Fall nee na kooku ku texee di la fa gaa yi xam tey xalaat ña xam dëgg-dëgg yàlla tey xalam suñu borom xam na ne képp ku la won ginnaaw yow Cheikh Ibrahima Fall kooku ku texee di la mu ne egg ci ne inni la nasru jaddan nastaniiru bihi fa nuuruhu faaqa nuuru shams wal qamar nun de noo ngi sant yàlla bu baax ci Cheikh Ibrahima Fall daan na ndax ci moom lañuy leerloo te leerug Cheikh Ibrahima Fall faaqa nuuru shams wal qamar kawe na leerug Euh, jant waaye kawe nay leeru weer kon leeru Cheikh Ibrahima Fall kawe na leeru jant kawe na leeru weer antal muridu li abdillah ahmadina albakki man siitu qad daa fi ljusur yow yaay muritu sëñ Touba dëgg dëgg yow yaay muritu Serigne Touba yow Cheikh Ibrahima Fall yow yaay muritu Serigne Touba dëgg waaye matale nga kóllëre ci jëf taqoo ak dëggal ci lu nëbbu ak ci lu feeñ wa fayta bil ardi mit waa an lahu alama mulazima sidq fi sirrin wa kon matal nga la nga la nga la nga daale woon waaye matal nga ci kóllëre gi nga xam ne euh, doxoon na sa digganteeg Sëriñ Tuuba ci jëf doxoon na sa digganteeg Sëriñ Tuuba ci aw melo kon jëf jooju euh, la muy wone dafay wone rek euh, wàccuwaay bi nga xam ne moom amoon na ko ci Cheikhul Khadim moom Cheikh Ibrahima Fall mu di koo xam ne it euh, màndarga yi tënk melaw yi Sëñ Tuubaa bëgg ca la nekk kon xadamta Ahmad al bi idni rabbika alxadim cheyquka nuurun min qadim man shakka fii xat xasa liggéeyal nga sëriñ Tuuba ci ndigalul yàlla kon xaddamta ahmad alxadim bi idni alxadim kon yàlla moo jox ndigal euh, Cheikh Ibrahima Fall mu liggéeyal sëriñ Tuuba kon wane na ne ci ndigalul yàlla la doon liggéeyale Serigne Touba te mës ta wax sëñ Touba déet Serigne Touba daana wax ne Ibrahima Fall li ko tax a raw mooy déet mës ta génn ci aw làmmiñam tàbbi sama nopp mës la wax Serigne Touba déet ñoom benn symbole lañ amoon. mooy lu sëñ Tuubaa bëgg dana am lum lu sant danañ ko def foofu la mag ñi toppoon sëriñ Tuubaa nekk mooy lu sëñ Tuubaa bëgg dana am lum lu sant danañ ko def kon moo tax sëñ bi nee na Cheikh Ibrahima Fall déet mës a génn ci aw làmmiñam tàbbi sama nopp kon loola mën nañ caa gisee melow yi nga xam ne ab taalibe noonu la war a mel ci lu sëñ bi bëgg dana am lum lu sant danañ ko def waaye mu indi ci yoon wi loo xam ne it buñ doon génnee li yonent bi alayhi salaam wax ne ku teg tele lu baax lu ku ko jëf lu mu ca am danga ca am lu tol noonu te du yàq ci sa yool yoolu ku ko jëf dara kon loolu day mel ni la waykat ba di wax ne yaa indi jébbulu ak sujjóot ci yoonu murit yaa joxe lépp landal àllarba Cheikh Ibra Fall kon jébbalu ku ko indi Cheikh Ibrahima Fall ku andi ci yoonu murit Cheikh kon yaa indi jébbalu ak sujjóot ci yoonu murit yaa joxe lépp landal àllarba Cheikh Ibra Fall dikkirul ilaahi la sax yendoo liggéey joxe ci lii nga jaar ba ñu xëy baddil la Cheikh Ibra Fall kon dikrul ila muy tudd yàlla kon dikrul ila la sax yendoo liggéey joxe ko ci lii nga jaar ba ñu xëy baddil la Cheikh Ibra Fall kon tudd yàlla ak di liggéey di joxe ca la Cheikh Ibra Fall jaar bañ baddil mu ne lim def ma see ko def te kenn kenn du ko def ba àddunay tukki neen billaahi Cheikh Ibra Fall nee na lim def ma su ko def te kenn kenn du ko def ba àddunay tukki billaahi neel Cheikh Ibra Fall am nga lu kenn amul te jëf lu kenn jëful daa di Cheikh Bamba laam gaay làmp cay Ibra Fall kon kay yow booy jàng alxuraan jàngal sa bismillahi rahmaani rahim rek waaye bu fa nekk naan lam gu lonk giig li jiitu baageeg moom lan moo tax mu nekk ci nu ñu koy tuddee lu boo jébbuloo di murit julli di sa wàll woor di sa wàll del julli tey woor te màndu ci ku julli te wóorul rek kon basmala laam nga ca kaw tiim bàgga kenn xamu ko baagaa di Cheikh Bamba laam ngaay làmp ca Ibra Fall mu ne kon ëllëg la ñuy xam mbiram buur yàlla moo xarale wallahu yafalu maa yashaau Cheikh Ibra Fall nee na adduna moom kenn du ci xam Cheikh Ibrahima Fall yowmal xiyaam rek lañu koy xam moo tax mu ne ëllëg lañuy xam mbiram buur yàlla moo xarale wallahu yafalu maa yashaau Cheikh Ibra Fall adduna de su ko fi xam waaye yomal xiyaam la ñuy xam kuy Cheikh Ibrahima Fall mu ne labdaaliya ak xutbu yaa xawsiya neen jamono enrife seen nañ ko jox Ibra Fall na abdaal yi xutbu yi xawsi yi enrifuuna billaahi yi nee na seen bóot yépp dàmbe nañ ko jox Ibra Fall amaana waaye di ko jeex ci téere ba jamono allahu akbar yàlla noppi na Cheikh Ibra Fall am na ñoo xam ne ñu ngi koy seet ci téere nee mu ne kon amaana waa waay di ko jeex ci téere mbaa jamono allahu akbaru yàlla noppi na Cheikh Ibra Fall kon ñi nga xam ne lu ñu wax ñu ne bu ma gisuma ko ci téere mbir mii dana leen jaaxal ndax fu ñu koy lijjantee dana leen të waaye bari na lu ñu gisul ci téere rek bokk na ci yooyu yàlla jagleel ko lii waykat bii wax ne ëllëg la ñuy xam mbiram alxuraan moo wax ne yowmal qiyaam kat kenn ku ne am na loolu doy sëkk bisub keroog Cheikh Ibrahima Fall ne ne bis ba nga xam ne bu jàmm ñépp dajee koo ne yaw mu ne du man ku ne ma yaw ma ne mën a Fall kooku kon dégagé ay responsabilités mais dafa assumer ay responsabilités kon la sëñ Modou Lamine ngay waxoon rek na Cheikh Rafal daal fa ko sëñ Tuubaa làq la kenn xamut waaye niwut ci caaxaan loolu mooy li mooy li wér Cheikh Samatum sëriñ Chouaïbou dafa ma nettali barki démb ne sëñ Mbakke faa jaman mooy sëriñu sëñ Daaru mii moo ma ko wax ci këram gi sëñ Abdou Samad Madiana mu ne sëñ Mbakke faa jaman nee na ko soxna May muuna soxna May moo ko wax ne ko sëñ Tuubaa nee na ko sawara dafa ñëw fii fi man di jooy daal na yàlla ba mu ma sakkee dana ma danga fees waaye xam naa ne duma fees ndax yow mii ndax yi daje ci yow ku la bëgg ak ku la liggéeyeeg ku la siyaareeg ku la jox addee yépp ku ko def mucc xam naa ne duma fees nee na sëñ Tuubaa ko da nga fees kay la lay feesal nag mooy ko wax ci Ibra Faal ak waa këram lu dul noonu kon bari na ñoo xam ne moom faw dana mus dara la waykat dana Cheikh Ibra Faal jaraw lakk yow ku la bañ dana lakk yowmal xiyaam ku nu fa lakk dalaa bañoon ci xërnu bi loolu am na ndax kat gis nga yoon wi mu jàngale sukk xoola sukk raam fàtte sa bopp fàtte saw sant boo nuyoo joxe dara kulowoo nga wuyu liggéey di joxe yalwaan dunde président bi ci Amérique bu mënoon a am loolu kenn du ko opposé yoonu murit ngay gis ki nga xam ne boo ne woon diis mu toog du bëgg di toog ku jàngale kenn toog ca kaw ñi des toog ca suuf bu duloon Cheikh Ibra Fall nu ñuy amee lan moo xew kenn mënu ko rek sëñ Tuubaa moo waxoon ne déet ma sa génn ci làmmiñam gis nga murit gi bi ci kenn mënu ko duggee ak sëriñ si nangam la tag-tag yi bari fi ne aaliye bari nii rek waaye ñu bari maa ñoo yam duxum ndax sëñ Tuubaa moo ne Ibra Fall li ko taxa raw déet mës a génn ci làmmiñam tabbi sama nopp te léegi juróom-benn yii xew sëñ bi daa waroona sëñ bi warutoona lu tax sëñ bi lépp ak sëñ bee murit laa waaye sëñ bi cippatu yooyu ana lu ci doon lu ci Cheikh Ibrahima sëriñ Touba sëñ Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall ñëw na njëriñam di siyaare si sëriñ Touba yam ci sëñ Mbacke Bousso yëkkati addiye jim yor yépp jox ko sëñ Mbacke Bousso na ko yaay mbokkam dal di delluwaat xoola jooju worm léegi egg nañ ci jamono joo xam ne kenn xamatul koy jox worm te damay wax ne gaa ñi réer a ngi am bu ne woon ëkk gi sëñ Tuubaa moo ko moo moo fa wéeru woon kun akk ci kun akk ci ëkk ga suulaale la dañ naan diw àjjana la jëm ndax ëkk gu sëñ Tuubaa wéeru woon lañ ko suulaale kaddu gu sëñ Tuubaa wéeruñu barbar ko tibb ci suuf sa ñu ne suulaale nañ ko feggub kaamil ñu ne kaamil bi sëñ Tuubaa ko doon jàng dagg nañ ca aw fegg suulaale ko àjjana la jëm ku mën a waggar ak kadd ak ngeer te mënoo waggar dereti sëñ Tuubaa foo jëm te lu kadd foor foor kadd moom sëñ bi daa fekk yàlla jëmbat ko fi te sëñ bee tànn ñi bokk ak moom kon ku bëgg bëgg sëñ bi waggar ñu ñoom dereti sëñ Tuubaa du caaxaan moo tax Cheikh Ibrahima Fall léppi sëñ Tuubaa la waggaroon gis na Serigne Saliou ca njaareem moom Cheikh Ibrahima Fall ko séenee lu wax keekal nañu ne ko Serigne Saliou doomi Serigne Touba la mu ne doom liggéey ngi door a jot yët ma la fa kër ga lu waaye am na ma jox liggéey ngi door a jot yët leen ma la fa kër ga lu waaye na ma jox ñu dajale addi yi ba mu bari bi ñu ko jóoree ci kanam Serigne Saliou Cheikh Ibrahima Fall moo ko wutal ndaw yu ko yóbbu waaye Serigne Saliou mënu ko yóbbu benn baat la ko wax nga fasal ma ci liggéey bi may liggéeyal sa baay Serigne Touba ba sama bàmmeel di ko liggéeyal léegi nag sa baay laa toppoon gëwuma la da ngay sa baay laa gëmoon gëwuma la luy loolu luy loolu sa baay laa gëmoon luy loolu laa gëmoon xoola may liggéeyal sa bàyyi dégg may liggéeyal sa bàyyi sëñ Tuuba ba sama bàmmeel di ko liggéeyal kon kooku kooku la mu la fas ci Cheikh Ibra Fall waaye léegi-léegi nga dikku ne ah man xanaa damay jéem a maslaa fenn rek waaye saa waaja nangam dégg nga dégg nga ak mango kenn du ko dagg ak déem di fa génn ak mango kenn du ko dagg ak rat di fa génn nañ bàyyi tappale ak bëgg dund yi sëñ bi ñim tànn tànn leen ñooña la tànn ku ko mënta wutu doo ko fekk sëñ tubaa ku ko mënta wuutu doo ko wuutu ku mënta wuutu sa baay doo ko wuutu mag ñi liñ liggéeyal sëñ tubaa ni mu feese ak liñ liggéeyal sëñ Tuubaa ni mu doyee ak fi jaar ci sëñ tubaa liñ ñaan sëñ tubaa ba sëñ Tuubaa faggul leen ko suñu borom ba mu am ay caaxaan mënu ko yàq waaye taalibe bi goo xam ne léegi ci xalaat rek lañ koy teg taalibe bi goo xam ne ci ay pexe rek lañ koy teg ci ay lijjanti rek lañ koy teg bëgg a doonu murit doo ñaq doo joxe addiye léegi alors fasaale est maa ngi sa ginnaaw jëwriñ dana baax luy baax googu mooy gan loo am denc lañ waxoon ne koo loo loo loo koo xam ne loo am lekk loo jur tudde say say bokk loo jur yaral sa bopp boo dee murit doo sàddiq bu ne daara ja nga ne sëriñ ñi léegi seen doom yi dañ leen di jàngloo ba noppi jël sa doom di ko liggéeyloo waaw waaw waaw dëgg la de dëgg la ndax ba seen maam di liggéey sa maam a ngi sàmm fexeel sa doom am ngërëm rek boo liggéey mu mañ di toppee am ñu ko topp waaye amoo ngërëm say doom amuñu ngërëm lan moo jar ci àdduna nit ki yoon wi mu jaar échec da cay mooy talof njabootam yoon woo xam ne ku wax ñu ne ni ma ko gisee nu ma ko gisee te ak murit sëñ Tuubaa ne ñeent ko tënk asidduq fi mahabbati cheikh bëgg sañ bi sami dëgg xosnul iqtifaali athaari alqadimi dalala in kunta naa bu fekkee ne bëgg gi sëñ tubaa wér la fa sëñ tubaa nekkoon lay ngay la ñuy ne fan la sëñ tubaa nekkoon afnal xayaata bi ma yurdil ilaa wa ma jaa ar rasulu bihi mafrudan wa masnuna fal lu neex yàlla neex rasulullah ci la jeexal ak dundam nun nag danoo bëgg am lépp li ñëpp am ba noppi te teg suñu bakkan fu nu neex da dégg koo xam ne day jekki-jekki naan bu ma fekkee woon jamonoy sëñ tubaa course bi nga fekkee rëwoo kenn bëgg a fekke course bi Cheikh Rafa la sëñ ma Ndumbeeg sëñ Dame Abdourahmane Lo maam Thierno Birahim ponkal yooyu grand combat yooyu yow mënoo daan mbapat mais ñi nga fekke kenn gërëmu la sa jamono sa sëriñ gërëmu la amoo sa ngërëm yi way jur amoo sa ngërëm sëriñ naan bu ma fekkee woon jamono yi sëñ Touba bala ñoo mënoon a gëm bu ma fekkee jamono sëñ Touba jamono ji nga fekkee dangaa waroon a raw ba noppi waaye kun tudd mu yéem la bu ne sëñ Dame Abdourahmane loo ñaari rakka la téeméeri téeméer ñaari rakka kaamilum alxuraan nga ne est-ce que ci loolu kenn mënu ko pourtant temps bi gaañaa ngi koy def am na ñoo xam ne dix heures la ñuy tàmbali di connecté ba quatre heures du matin moo gën a yàgg fop na file googu ñu lan def waaye jeexaloo ko ci lu neex yàlla di accepter que demande rek ak réciter say ami fàtte sa meilleur ami foo toll am connexion te doo joxe cotisation fasaale rek sëñ bi màggal nga yéene ngi gii moritu toppale fan lañ ci mën a jaar ba li ñuy wut ñu am jàppal sëñ bi jàppal ne xuloo xeex ak weranteeg bu kenn ku ne defaree sa bopp Cheikh Mouhamadul Moustapha bi mu doonee sëñ Tuubaa daa am ko ñëw na ko Mbakke yan bi diis na mu ne ko waaye da nga ma ciy jàppale ma ciy jàppale na kenn ku ne defar boppam rek bu ko xamee li la war fa nga war a féete nga féete fa dara du yàqu nu roy nu roy mag ñu baax ñi ci mot kon bëgg moo jiitu ba ca topp mooy imsaalu amrihi ay su waral foo déggee ndigal jóg dañuy wax ne ndigal amul chance Sëriñ Bay Jaxate radiyallahu taalaa nu nee na lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ne ab sëriñ du bëgg nit ba foog njariñ jox ko tuppul ndigalam boo bëggatee ci sab sëriñ lenn njariñ jox koy njariñ sëriñ ko koy joxe njariñ mu di la jox ay njariñam lu dul ndigal amul njariñ la wax te gis nga li maam Cerno borom ma Muxti daan wax ne nit ñi niñ ragale ak ñàkk buñ ko ragale woon yàlla dara du jeex ñàkk tax ragalu ñàkk tax ñuy dee ci àll bi yeewu 4 de matin horaire bi du la raw li may wax gaañ da nga gis ku dëkk ci dëkk du ma sa jaar ca jàkka ja fajar te saa yu waree fajaru jëm ndakaaru refeem quatre heures la koy def damaa bañ horaire bi dem ba ma te allahu akbar jàg xay yaala salaatu asalaatu xaw min ne naw mi yàlla di la woo nga lakk nungu woo julli dem ba ndakaaru na naan ko yàlla nag andil may xéewal mu ne ma la wooy suba ñëwoo woo naa la ci suba nga lakk ba ñu jug am na ñu jàpp nañu sax teel a yeewu moom ak ngaaka la fi na am na ñu liñ considéré mooy yeewu onze jàpp nañ moo di nandate moom non man mënumaa teel a yeewu parce que nangam te ci lenn kon ndigal moo jiitu mag ña noonu lañ meloon ba ca topp mooy tarkul i'tirad bàyyi diingat sëñ bi diingat walaw bi baatinin alayhi fi ma qad rawaw doon ko ni sa biir néeg la boo dee diingat yaa ngi yàqu léegi lañ toll ci jamono joo xam ne sëñ diw normal léegi lañ ko ngemee wax sëñ diw normal sëñ Tuubaa laa gëm di xas njaboot gi sëñ Tuubaa laa gëm di wax lu ñaaw Seex Rafal laa gëm di xas waa këram ana sa gëm ana sa gëm ana sa gëm ana say teggin te bokk na ci teggin xifs xifs xurmatin wa ulwa himmatin wa xusnu xidmatin eh, wa shukru ni'ma bokk na ci teggin mooy am worma kon worma jooju anamu kon murit day jëfe ndigal bàyyi diingat waaye fu ñetti murit daje léegi ña ngay werante waaye léegi suñ sëriñ yi léegi nag cey suñ gaay li may wax barki démb ci benn conférence ma ne sëriñ su bari fi ne dañ cee boole di leen catu te duñ leen jox dara sëñ bi dal na ci de yi gis nga bi mu yor joxoo ko xam nga nii da non sama sëriñ sama bi gis nga bi mu yor fan yi sëñ bi dal na ci mais sëñ bi dal na ci te yow joxe woo ci dara fi ne bari na ñoo xam ne kenn xamul fi ñu man Baye Fall rek aboori jàll kuy sa sëriñ nga ne man kër Cheikh Rafal laa kër Cheikh Rafal ku ne fa nga abonné da nga war a xam kuy sa sëriñ nga ne man sëñ Talla Fall sama sëriñ kuy sa sëriñ nga ne sëñ Basirou Fall moom sëñ Bada Fall mooy sama sëriñ moom sëñ Bakke Fall mooy sama sëriñ adhéré yow mal xiyam kuréel bu daw nga daw àkk leen ah? waa ndaam man waa ndaam laa waa ndaam kat sëñ xaadim loo fay sa sëriñ wala sëñ Basiir wala sëñ Musaa am nga ay nit a nga fa nga ne diw sa sëriñ xam la sa waa kër sëriñ xam la nga xam sa waa kër sëriñ xamanteeg ñépp waaye buntu kër sëriñ mu ne nga rang fa xeeb sa sëriñ gis nga boo waggaree sa sëriñ ci ngay mën a waggar sëriñ bu ne waaye buntu kër sëriñ bu ne nga rang fa noonu sëñ diw xoolal li gën di ñàkk fay dañu ne wut nañ ab set place léegi sëñ bu normalu du ci dugg yow sa sëriñ doo ko ngemee yéegal di yéegal beneen sëriñu jàmbur naan sëñ diw de kon mën naa yéeg loo ko xamal yow koy na sa sëriñ dugg rek yow ba sa sëriñ yéegul sa sëriñ jël na bangub kanam ku am fuy de léegi am nañ bay segg ay sëriñ sëñ diw normal naag sëñ diw normalu tëg léegi jël ay lobby teg ay xalaat murit goo xam ne ku ne da nga bëgg a looy li ngay dégager moom ngay encaisser bañ a gëm kenn te bëgg ku gëm bëgg barke nag te barke ñett la sëñ Baara jenn la sëñ Tuubaa ne woon barke ñett la bi nga sàcc bi nga liggéey bi nga àbb bi nga sàcc danañ la dab duma la nangu ko bi nga àbb bu borom soxlaa nga ñàkk bi nga liggéey yàgg moom ba ba àjjana bara barke bi nga sàcc nag mooy ku jug xew nga ànd ak moom buntu kër buñ la gis say bu subaa ñu gis la beneen yow ko xew rek. ca ngay soli jasineer di tëji buntu di tijji di seet ñooy gàllankoor ak ñooy iñaara ak ñooy xeex bu nee wàcc na nga seet feneen barkeb jàmbor la boo sàcc bi nga àbb nag mooy sama classe gi jàng ak waxtaan képp jërul da ngay rel bi fontoo ba kër Sëñ Tuubaa ndax dañ la ko abal donc maami jàmbor ngay wax ba jag wax maami jàmbor nag ba tedd bu taxee barkeb jàmbor nga ba àjjana mooy tukki yàlla di fi nekk barke boobu du fi jóg xalifa bu bees bi ñëw ñu ñaan waa ndaama dem relevé seen ceex bi wala waa kër Cheikh dafa lay relevé ji wala waa kër sëñ Mandumbe déedéet ku fi toog da ànd ak ñoom di Cheikh rek ngay santaan ñuy def waaye mënu wàññi seen mbir dara loolu dañ ko liggéeyoon démb kenn mënu ci dara ba ca topp mooy salabul ixtiyaar ab murid du tànnal boppam day bàyyee sëñ bi mu koy tànnal noonu nag nooy tànnal suñu bopp booy takk soxna sëñ bi du yëg booy tabax kër du yëg gis nga dee yu gaaw yeeg loo yor mu yàqu yeeg liggéey ba yàgg mu yàqu geeg yépp ginnaaw sëñ la ñaanal te laa taf am lu shay'an la wax waxul la wax bala ngaa def amal ndigal bari na ñooñ balaa seen sëriñ ya xam ne am nañ soxna dañoo am problème ba tribunal am ci yoon ñu dëkk na ko ci sang bi boo waxul ma dem soxna sa nangam ay bokkam lu tax bi nga daata takk ñëwoo ci moom seetlu woo ko mu seetal la ñaanal la waaye léegi barke la ñuy wone te mag ñi mel meluñu woon noonu Cheikh Rafal lu mu amoon rek jox na ko Serigne Touba loolu moo taxit nii mu mel kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara kon nag tuddoo gi sëñ Touba làqoo gi sëñ Touba te lu la neex def lu la neex wax loolu mayewu dara sëñ Tuubaa daana wax na ca laa bokk ca laa bokk te sa dara néewu ca ba bisu payu ba awaa na lay sa lin insaan illa ma saa kenn mënta fexe ba am loo jëful sëñ Tuubaa dajale na mag ñi ci gànnaar ne leen ne ca la la neex di def la la neex di wax la la neex ba faatu yowmal xiyaam nga di ma wër bëgg ma ramm la ma di la wër ngir bëgg laa ramm yàlla xereñ na ba duñ gise léegi taalibe gi dafa yomb jàppe nañ ko du doon jëf léegi ab sëriñ ab xarit nga koy def ab gaayin boo nuyoo sëñ bi sax mu fattu nga dégg naa man du ma xaar da nga dégg ko naan noo man du ma rangub sëriñ sëñ bu ma ñëw nga tëju ma dem waaye nattu bi la yàllay teg dalay boole ndaw sooy rang te bàyyam day tere ko dugg buntu kër ba nga nekk di siiju rek rangoo sëñ waaye am nga ndaw sooy rang rek te wallahi pësiëf bii gaa gaañe woon jigéen ñii buñ ko wonoon sëñ bi yegg koo xam ne bu sas ndaw meree nga dof lu mu laaj nga joxe loolu sëriñ bi sax da ko mën lijjanti woo géej géej gi sax bañ a géej gis léegi la nga gis waa ji dox ci mbedd mi kënër kënër boo ko laajee lu mu doon benn baat dong la lay tontu booy bi laa amal problème képp pas-pas boobu boo ko jëmee woon ci sëñ bi kan moo lay tey egg fa nga jëm kon jeunesse bi ñoo war a ñoo war a jóg jëm ci sëñ bi te dox ci sëñ bi te xam ne ay tappale mooy kenn lam bëgg sëñ Tuubaa bu fekkoon ne àdduna la ñuy giiroo mag ñi ñooy yegg gratis bi mag ñi ñooy yor lu ne waaye ñoom lañ liggéey te lañ ci lañ ñëpp di añ tey kenn mënta jeexal barkeb sa maam mboolem ñi sëñ Touba seexal seen i kenn ku mën a jeexal barkeb sa maam nee naa leen kër yi seen maam bàyyi képp ak dëkk yi seen maam bàyyi ak mbooloo mi seen maam defar ku jógoon ngir di ko bëgg a xam képp sa dund mën na cee jeex te doo yàggal kon nañu jàpp ci sëñ def la sëñ Fallu waxoon sëriñ Fadilu Mbàkke nee na woon sëñ dañ naan ko nikk ne ko nankutum na ko katiiw na ko taraw liis bañ a deng deng rek ak muritu sóob ak muritu caaxaan maa ngi leen di baloo àq di leen jéggalu di leen jéggal di jéggalu bu baax nag ndax jataay bi di soññ sama bopp bu baax a baax di soññ ñëpp ci nga xam ne war naa leen ko wax te nu maase mooy nu xam ne ak taalibe ay caaxaan du ko maye ndax yombul neexul neexul yombul nañ bàyyi jéem a nawlante gi Cheikh Ibrahima lu mu waxoon kër sëñ Bamba ñaari cër faam cërub sang ak cërub ngàll ku nungoo doonu jaam rek am ci cërub sang fii ne boo nungoo doon ab murit doon taalibe bu dëggal bu sëñ bi nee diis rek yaa fay nekk waaye boo bëggee dagg ran gi ay noonu la lay jural ndax kenn du la ran ñi bëgg a dagg gi nag problème boo gis looloo ko ni man gis naa lu ma am sëñ tubaa ma ko may nga toogandoog sëtub sëñ tubaa ci kaw lu ma am sëñ tubaa ma ko may jox sëtub sëñ tubaa loxo benn loxo lu ma am sëñ tubaa laa ko am sëñ tubaa laa gëm xas satu sëñ Tuubaa saaga satu sëñ Tuubaa wax lu ñaaw satu sëñ Tuubaa boo noppee giñ ci sëñ Tuubaa ana dëgg ga ana dëgg ga boo gëmee ne loo am sañ Tuubaa la ko jox dangay delloo lépp sëriñ Tuubaa mag ñu baax ñi noonu lañ meloon mosunoo gam-gam le sëñ Tuubaa ak dara léegi nag nun sunu bëgg gi bëgg gi sañ Tuubaa moom mën naa wér am na bëgg nañ sëñ Tuubaa lool mais ràññee moo des xàmmee moo des xam fa ñuy jaar moo des xam nañuy moytandikoo moo des dañuy defee ne rek foo dal noonu la te ku wootee xam nga yoon wi li tax ab jay yomb fi mooy ku woote ñu topp la fi ne suba man bu ma beru woon fee képp naan gis naa sëñ biig dama ko gént biig nga dégg ñu sa waay li muy waxtaan sëñ Tuubaa mënu ko woon a ñàkk yàgg na maa gis sëñ bi di tudd naan di ma tudd te fekk xamaluma dara ku woote day mel ni nit ñi daa am ay ay kuréel yoo xam ne comme naar bët dañoo suulu fenn di xaar ku bees ku woote rek ku woote man seex yu bees yi ngay gis doo xam maanaam fu ne man yow yow original yi ne fi seex yu mag sëkk sëkk sëñ Tuubaa seexal seen i baay seexal seen i maam mankiwul waaye nga gis koo xam ne doo xam lu mu doon day jékki taxaw ne ah na man damaa seex seex goo xam ne xaalis la koy may mais du yàlla parce que bari na ñoo xam ne maa ngi ñoo ma yem jàngoo xamoo dara da ngaa yor dara rek ku yor dara seex waaye bu noonu def ku wett ku ca daara ja ñaq ba gërëm ñu ne la gërëm naa la barke ba toftalu affaire bi mën a continuer am am continue waaye nag yor dara loola neex wax loola neex def ñu ne diw ab seex la ah gone yi xamul fu ñu jëm jigéen ñi ñu jàpp ne yoonu mu yoonu fecc laag yoonu caaxaan laag ku wax lu ñaaw jàll ak yoon la woo xam ne daal bandi bu dem wëndeelu bu amul foo jëm rek nga ne sëñ Touba te wallahi wallahi alazim loolu du Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Touba de huwa alkaramatu walfaqar waljamal bi hitaz aswadul maadum law ñëpp xamoon ne law laahu kaana suudukal maadum bu nit ku ñuul amee benn tedd nga wala mu am benn honneur sëñ Touba la te amul kenn ku mën a natt ci kaw suuf ku yàpp sëñ Touba kon bu ñu bëggee dugal leneen ci yoon wi rek ci ci ci nun ñi lay doon yàlla na fi yàlla yàggal sëriñ Bachirou fal mi nga xam ne mooy woote bis bi ak waa bul Murid bi nga xam ne sëti maam Cheikh Ibrahima Fall lañ ku ñëw fii fekk leen niñ toogee nga xam ne Baye Fall nii lay mel jàng yaru nu ngoo liggéey si loolu moo di Baye Fall ku ñëw fii fekk leen fii daaw bi ñuy daje fii ab kuréel bi doon yëkkati nga xam ne dama ko enregistré woon daaw daaw beneen loolu lu ko gën a daw yaram amut ñu ne sëti Cheikh Ibrahima Fall moo taxaw fii ah di di di di kuréel xasaa yi di léegi bi ñuy ñëw sëñ Cheikh lañ fekk fii nga xam ne lu ñuy def loo nit mm, am nañ ko man ko di ko def te boole ko jëf lenn ndigal loo mës a dégg ñu ne ñëw na kër Cheikh Ibrahima Fall dellu amut mës sa am mbooleem lu ñu santaane ne Cheikh Ibrahima Fall la koy jëf këram loola lépp mat na te loolu mooy mooy liñ màndarga woo xàmmee ko léegi xam ko di ko jëf waaye pas-pas yi daal ak pësiyëf yi buñ ko dëgëralee rek fu ñu jëm danañ fa jëm sëñ maam Cheikh maa ngi lay sant bu baax di la di la gërëm bu baax a baax sëñ Talla sëñ Modou noo ngi leen di gërëm bu baax di leen jéggalu nag di nuyu njabootu sëñ Daam Abdourahman Lo gi nga xam ne ñoom la ñu euh, duppee bis bii di ñaan yàlla suñu borom fayal nu sëñ Daam Abdourahman te yàggal ko dajal noo ngërëmu Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullah